alors Mœurs euh, euh, xay yi nga fiy dalal madame Oumy ah donc mu yëngu ci wàllum immigration et tout donc ñu bàyyi leen rek ngeen yaatal yéen ñaar. ah waaw ñu koy nuyu bu baax. di la euh, waaw di vraiment di rafetlu sa ay tànk tey. Mhm. li la tax a jóg non non moom du fi gan du fi gan ku ne ah, xam na. je crois que def naa fi trois ans. voilà trois ans de d'émission. émission waaw. sama kër la sa kër la c'est sûr. mooy lan moo nekk ci biir masque bi. ban kanam ba normal problème quoi. parce que comme Covid la ñu wax et puis je suis directrice d'école il faut que je donne l'exemple. non mais c'est vrai c'est vrai kenn du fa dugg de sa robe. wàccee benn wàccee bu ndaw rek. wala ngeen <laughs> waaw euh, madame Oumou. Mm. Euh, mu mel ni rek euh, dafa am ay images yoo xamante ne envoyé nga ko yu ànd ak ak ay audio. ci ñi nga xamee sit ni dañ doon def euh, immigration. Mhm. xam naa rek dañ lay bàyyi rek nga expliquer ñu tuuti wala rek ñu bàyyi reportage bi. jàll bu ko defee ñu xool ko gën ko mën a commenter ndoo ensemble. d'accord. Mhm. ñun la sénégalais migrants clandestins yi ñu jàpp Maroc ñu ngi fi nekk ne fi quarante huit jours tey ñu ngi ni booba tey ñu ngi ñu jàpp fii si kaw la ñuy tëj amul génne amul dem fenn waaw ba léegi gaayeen am na ñi nga xamante ne malade neen am na ñi nga xamante ne seen tànk yi na ba nga ne sedd gi ko ba pour ñu dox sax ngi nii gaayeen yàgg nañ fi lool gisuñ benn autorité bi nga xamante ne daal waa danañu fi taxawal gaayeen léegi nag ñu ngi ñaan ndimbal autorité sénégalais yéen ñu nekk foofu noonu waa Walfadjri waa ñu ngi ñaan ndimbal ñun seen doomu doomu sénégalais yi nekk Maroc fii nii ngeen xam ne heure bi na sonn neen lool sonn neen lool ñu ngi ñaan dimbal euh, ngeen dimbale si président Macky Sall ak autorité yëpp ku ñu si mën a jàppale rek ñu jàppale ñu mën a retrouver seen seen seen njaboot yi c'est lool bëggoon nañ jullee tabaski amul luñ defut dajj nañ porte bi génn manifester ak dañuy mujjee jàpp gars yi encore dugalaat ñu ñu ne ñu teel a teel a teel a suba ñu ne ñoom autorité Sénégal yi Sénégalais lañ ñu ne booba léegi autorité sénégalais wax buñ dara si ñoom li nga xamante ne nii lii kii la waaw te ñun moom léegi bëgg nañ ñibbi delloo si njaboot xam nga borom kër bu ñu tëj un un mois ak plus liggéeyu defu dara kooku moom mooy tardé nañ ko lépp ak ki nga xamante ne xëñ nañ ko liberté kooku tardé nañ ko lépp waaw léegi dañoo bëgg carrément autorité sénégal yi yéen ñi nga xamante ne ñu fa toogal ci kaw ngeen jàppale ñu mu jot autorité sénégalais ñu jàppale ñu kër gën ko gaaw ñu mën a dem jot ji sin sin sin njaboot yi c'est que sonn nañ lool souffrance neen doo lekk lekk bu normal waaw benn plateau kii lañ lay indil seen ñamu ñànkataam boobu la ñuy togg ñànkataam bi kese kese amul dara amul tous moom lañ lay indil ak benn dogu jën ñu tegal la ko fii nii waaw bu ñu ko indee dañuy indi reer ak ndékki léegi da siy reer nga denc leneen li ba ndékki si suba si si ëllëg nga door a loolu pour nga lekk lu tàng sa problème la waaw léegi nag dañuy ñaan dimbal ku si mën a jàppale ngeen jàppale ñu ñu mën a dellu ñun Sénégal si réew lu mën dëgg ma dañ doon daan doole rek xëy na nag mu yàlla defee ko nii waaw soxna si gis nga sama waa ji de loxoom bi xam naa ne gis nga dagg na gis nga yow sànq bàyyi bul yëkkati bul xëcc gis nga loxoom bi daanaka dafa bëgg sax instant bi ku ñu ko ko hôpital instant bi loxo bi dañ ko war a éliminer moom mi ngi naan bu ñu amoon paaka ko ko mu jéem ko dagg fii ndax instant bi loxo bi da ko sonal trop gis nga loxo bi nga lii daanaka dañ na booy laal laa foofu mooy mu xooy ko gis nga gis nga loxo bi lii daanaka yàqu na wallaahi alors ñu ngi jégalu bu baax ci image yu sensible yi nga xamante ne wane nañ ko mais il fallait que ñu teg ko pour mhm. wan nit ñi gravité bi nga xamante ne moo am foofu en tout cas mu nekk yéeme mhm. Mhm. voilà xëy fa mu nekk nii seeram baa ngi daw naa jël parole bi en fait mhm. tey mhm. Euh, ñëw ma fi en tant que esthéticienne dama fi mhm. ñëw en tant que citoyenne lambda parce que xaw nan lañ def ba am sama numéro je crois que j'avais passé une publicité au niveau de la DTV ci lañ chopé sama numéro alors su ma defee cours ba pare damay ñëw fekk ñu bàyyil ma ay vidéo yu bëri ak ay message woon ma seeni métit et y a même plus grave que ça parce que am na koo xam ne tànk bi fii mu di waxtaan ak man di ma lancer message di ma expliquer di ma jeunesse bi ñoom dañu jëloon gaal pour dem Espagne def nañ presque je crois une semaine ci biir géej bi mhm. avant que ngelaw bi ngelaw géej bi sonal leen donc gaal bi demul ñu sonn trop ci lañ wax ne pourquoi duñ accosté mhm. accosté wu fenn ba ngelaw bi dal ñu soog di jëlaat gaal bi dem bi ñu accosté woon nag la lendemain ci la leen marine euh, kii bu Maroc bi mhm. ñëw fekk leen foofu jël leen yóbbu leen au début ils étaient au nombre de trente mois de trente maximum trent léegi bi ñu demee foofu falañ leen tëj léegi bi ñu leen tëjee jéem nañoo xool seen ambassade pour Sénégal dara euh, consul dara amuñu koñ oo amuñu connexion sonn nañu xiif nañu ñu tëj leen fenn ci désert bi. Mm-hmm. Daxlaa lañ nekk yónnee nañ ba yónnee ma seen euh, seen. Euh, seen localisation alors j'ai contacté ñi ma xam ñëpp. Euh, mm. DTV def na ci journal euh, fii nii bopp def na ci journal ci laa oo monsieur Fall mu ne ma ñëwal suba nga wax euh, seen problème parce que dafa métti foo foo foo foo wax seen métti rek. Mm-hmm. weesu na ko. alors moi je la question que je me pose mooy Dakhla am nañ fa consul. parce que gis naa ne euh, madame Tall Sall euh, Ami Aïssatou. waaw ah, inauguré na ko. mais ina est-ce que am nañ prise de euh, nu mu tudd de de de de de. de position ou pas est am na ko fa nekk ou pas. Mhm. parce que ñoom amuñu benn interlocuteur Gambie bi nekk ci biir Sénégal dem na ba jël ay ay doomam. Mhm. ba yóbbu leen mais bi ñu insister pour ñu yóbbaale leen waa Gambie dañ leen xam ne ñun amuñu droit ci yéen mën nañ jël quelque yi feebar ci yéen ñu jàppale leen faj leen. Mhm. mais dañ leen di delloosiwaat ci ci camp bi mënuñu leen a yóbbu. ñun ñoom naqar boobu moo leen métti le fait que Gambie sax ñoo na jël ay doomam yóbbu mhm. te ñoom mënuñu am benn sénégalais benn kenn ku déplacé wu ñëw xam seen métti ay père famille lañ parce ñi ay menuisier lañ mhm. ñi ay électricien lañ ñi ay maçon lañ mhm. ñoom ñëpp dañu dawoon pour outil du ñàkk jom parce tamit soo nekkee ci pays boo xam ne nee soo xëyee pour nga jox sa yaay dépense problème la soo xëyee pour nga jox euh, sa yaay feebar nga faj ko problème la donc loolu moo leen poussé pour ñu jël gaal bi mais ak nu mu mën ci demee buñ leen ñàkkal fayda parce que ay doomu réew mi lañu. te ñu ngi vivre ñu ngi leen tëj fenn foo xam ne benn yoon lañ am droit repas. ak benn butéelu ndox gis ngeen douche yi ku am ay besoin sax wala ay soxla yooy def butéel ngay ubbi def ci li ngay def tëj ko teg ko de côté oh, donc ñu ci condition yu métti yoo xam ne bi nga gisee ñuy génnee matelas bi mhm. foofu dafa salté ba ñoom ñoo obligé parce que même ndox amuñu ko ci amul amul amul dara imaginez ci période de covid bi suñu xëyee dañ leen di indil quelque ndox quelque butéel yéen yéen xam lu ngeen ciy def balaa ñu leen indilaat le lendemain brosu nekk fi sangu fi nekk fi say besoin nekk fi nit day ñaq ngeen concentré wu ci benn ci benn ci benn ci koy wane ñoom dañu mer ba toj buntu bi génn bi ñu ko tojee nag dafa am vingt cinq yu daw ci ñoom mais ña fa des nee nañ ñoom mënuñu daw parce que suñu dawee fan lañ jëm xamuñu ko bi sax moo indi loxo yu dagg yeeg yooyu noonu borom loxo bii nii ça fait plus de deux mois que mercrocrop sax mënu koo am fajoo ko dañu mujj moom moom dafa mujj naan su ngeen ma joxee paaka ma daggal ko sama bopp imagine loxo bii mais ana ana consulat Sénégal lan lay jëriñ en fait du ma ne lan lay jëriñ mais je me dis que lii c'est sûr que waa Maroc oo oh, na kii de droit wax leen ko. Mhm. mais comment ça fait-il dem jël ay doomam. Sénégalais c'est-à-dire kenn sax taxawu fa waxuñu leen ci saa si ngeen indi ko parce que mhm. peut-être am na ay protocole mhm. am na yoo xam ne nii dañ ci war a dugg avant ñu leen di indiwaat mais au moins ñu taxawu leen massawu leen defal leen leen jox lekk ak xool li leen métti ak li leen méttiwul ça c'est la deuxième chose man même. Euh... autorités yi am na ñoo xam ne man am naa seen numéro. balancé naa leen vidéo yëpp. audio yëpp balancé naa leen ko. réagir réagir ñu droit de l'hommiste yi démb ci guddi rek ba ay 22 heures maa ngi envoyé ay message 4 ou cinq personnes réagir da ngay gis ne c'est vu c'est lu mais duñu duñ ci duñ ci wax lenn. où est-ce qu'on su dee ñun suñuy autorité dañ fi nekk te suñuy njaboot a ngi nii di tas te du kenn ku ci jóg mhm. c'est pourquoi je me suis dit tamit suñ ma yaakaaree di lancer ay message mhm. soxna si foo toll soxna si seetal ñu diw dem nga diw dem nga diw mhm. genre mission lañ ma jox donc à un certain moment il faut ma teg sama sama sama fonction il faut que ma teg samay cours ma ñëw wax pour ñu dégg parce que mhm. émission def nañ ko ci même A21 def na ci émission nee naa leen fii def na ci émission DTV def na ci émission mhm. autorité yu bëri contacté naa leen mais dañ naan on va régler le problème on va régler le problème mais jusqu'à présent presque deux mois mhm. kenn neewu leen salaamaaleykum comment ça s'est passé fan la ñuy fóotee et puis le plus grave mooy y'a 86 sénégalais yu ñu jàppaat indiwaat leen boolewaat leen fa alors que ci 86 personnes yooyu am na 4 yoo xam ne dañoo am covid fi mu nekk ni ko wax mu ne la sama copain bi mu ngi sëqat kële mu ngi tëdd ñu indil leen ay personnes yoo xam ne am nañ Covid ñaquwuñu joxuñu leen masque c'est-à-dire ils sont laissés à à eux-mêmes. et ça fait vraiment ay ay forum civil ñoom Seydi Gassama. Seydi son numéro hier je l'ai appelé je lui ai même lancé non ça sonne dans le vide plus de dix fois j'étais en train de manger j'avais mon temps téléphone bi laay jël di c'était un jeu pour moi c'est sonné coupé sonné coupé sonné coupé nga leen vidéo et tout droit de l'homme moi je crois que su demee dara ba demee ba siiw la ñuy génn commencer wax mais quand tu es seul es unique tu les appelles ils sont là am na kenn ku ma ci jot elle mission nga ci am ban fonction nga bàyyi leen du dara lu dul une citoyenne lambda qui est là qui des informations que je vous ai pas donc ne vous occupez pas de qui je suis pourquoi ma ciy intéressé ou pas jëlal mhm. liñ la yónnee nga xool ko dem naa ba envoyé leen localisation am si c'est avéré nga jóg def li nga war a def mhm. mais sama personne man amul importance donc loolu daal moom ma fi indi woon mhm. et puis le fait que ñu jëlaat ay nit tegaat leen foofu ñu am covid nga boole mbooloo boobu yëpp sa cest day dem ba yow sa sa sa sa dëkkandoo sax du la respecté Maroc suñu nawle la mais su dee Gambie ñoo na jël ay doomam te Sénégal kenn taxawu fa. Mhm. pour ne leen. defaral gan a ngi ni mhm. wala loxo bii méttikaay wala am leen lekk ngi ni wala naan a ngi ni mais on est dans dans c'est-à-dire je sais pas. mais lii lii xanaa du ñu ne ay Aïssata Tall Sall yëgul. yëgul Aïssata Tall Sall sur son numéro non j'ai appelé je lui ai lancé les vidéos je lui ai lancé les audios. ya am na benn Nata Samb la xaw ma la mm. même chose. je connais des personnes au niveau. Euh, voilà est lire lire na sa vidéo bi. ah c'est pas lui moom c'est pas lui c'est am na ñaari baar yi mais c'est pas lui. de toute façon fi boo nekkee les preuves sont là ah problème la gis nga li tax ñoom ñu daw. Aïssata Tall je je l'ai appelé vice consul bi ci boppam. Mhm. Nata Samb. Euh, madame euh, monsieur mais ni am na autorité yoo xam ne dañuy paramétrer seen i WhatsApp mën nañ ko lire sax te donc waaw voilà, peut-être certitude na ko mais mënuñu wax ni yëguñu ko c'est pas possible on ne peut pas avoir plus de cent personnes Maroc ñu tëj mhm. leen ci désert bi mhm. te kenn taxawu fa te mënuñu jox excuse ne yëguñu ko man bi ma koy yëg ak léegi ça fait plus de deux mois ah dem na kenn ki ki ma doon waxal li ma ci gën a naqari gisoo cat bi dafa nëb. dafa nëb kay dafa nëb. si dañ bëgg a xam euh, ban ban date nga mujjee waxante ak ñoom. démb ci guddi maa ngi waxante ak ñoom parce amuñu. kuy waxal kon bi réglé jusqu'à présent dañ may oo lan lañ wax ci man soxna si euh, nan la ñuy def diw feebar na mu ngi sëqat kële mu ngi lii euh, ñu ngi toj bunt bi dañuy filmer sax suñuy suñuy toj bunt yi pour génn yow amoo benn contact tamit euh, ca Maroc ci côté état bi j'ai j'ai appelé j'ai ngi France ci benn consulat mhm. il m'a dit qu'il va s'en occuper mais le mot je lui ai dit hier soir à 23 le mot je en cours ou bien va su amee bala ngay naan waruñoo immigré ñu def waruñu def mhm. da ngay leen di sauver ba pare génnee leen ci situation boobu su ñëwee seen dëkk nag yaa xam ndax da leen di yedd yaa xam ndax da nga leen di coow yaa xam ndax da leen di xas mais déjà taxawal métit lu ni ñu nekkee toppatoo mm-hmm. leen dooleel leen bañ dellu si mais looy soog nga soog di ko def mm-hmm. en tout cas nekk na lu nga xamee set ni doy na waar ci ñaari dëkk yoo xamee set ni vraiment ma fa nekkoon day dañuy wax teraanga yu nga xamee ni dañ ko séq ak Sénégal mm-hmm. kon lii dafa nekk lu nga xamee set ni dafa ñaaw parce que comme ni nga mais même pour connexion il yi di leen di garder connecté wu partagé ak ñoom ci la ñuy daw gaawantu envoyé audio envoyé audio. et puis man ban intérêt la ñu am. pour lii nii bi nga koy gis mu rafet nii dafa fekk ñu génnee bagage raxas ko fóot ko parce que comme ay ay doomu garu lañ aussi bëgguñu leen ñu leen di. filmer ci coono bi ci lañ génne bagage yi raxas salté bi seen quelques bouteilles yi ñu am toog noonu sangu pour mën a filmer wu defaral ma. defaral ma vidéo bi mais biñ may soog di wanal bi bu ma gisee douche yi nga xam ne dañ ciy def ak bouteilles yi seen i man dama tiit et puis boobu nan lañ koy nan la ñuy nekkee ak. Euh, ak mais est-ce bi ñu fay nekk sa Aïssata Tall moo nekk ministre des affaires mais état continuité la. continuité waaw si continuité pour wax la rek ni la kon yàgg nañ fa cest bi moo fa ni waaw état bi moo ngi fi dama mais bu deful ñaar dama la ni ministre boobu nekk na fi ba jógee fi Aïssata Tall aussi ñi fi ba tey même problème bi. loolu loolu Aïssata Tall la fi fekk. même si ko fekk xam naa ko fekk mais li grave mooy pourquoi personne ñu leen nekk ci politique bi nga leen di dégg ñuy politique di xeex di xulloo di defante mais il suffit que ñu jël post plus dootoo leen dégg à gis leen ñuy inauguré ci dëgg dëgg bu jaar yoon dëgg dëgg loolu ministre bi dafa def 48 heures te dem récupérer ay xoolal billaahi mais mu leen di lii nii su fekkee ne moom yëg na ko mm. dañoo waroon def enquête ndax yëg na ko wala yëgu ko 48 heures dañ ko war a daax dañ ko war a daax amul leneen lu ku ma mënti jot y a pire que ça je je balance les vidéos man léegi je laa ko def damay su may suñu may envoyé vidéo rek tac tac tac je sélectionne je l'envoie c'est automatique. pro de l'homistie dama leen di oo bay xul ak ñoom téléphone. est-ce que jot nga leen euh, contacter ci ci dossier bi vu que autorité ñoom dañu pat pataaral. activiste genre Y'en a euh, a marre a d'autres j'ai pas leur contact j'ai demandé mais j'ai pas leur contact. d'accord. donc li ma leen wax dëgg gëmu leen ko. Mhm. nee naa leen gars yi dañu soxor. nee naan gars yi dañuy sadi Sénégal Sénégal soxor. bu ma la sa temps ça veut que yow est que. Eh, li leen bàyyi foofu. kenn mënu leen a moo leen tax daw di immigré ji. Mhm. bu fekkonte ne conditions yi fii baax na du ñu daw di immigré kon kenn waru leen cee jépp. exactement doomu aadama la yu dans leur voix quand tu parles à quelqu'un lan immigré dañu war a bàyyi immigré yow fi nga toog climat nga tiim fi ñu toog yow yaa ngi yor oto yaa ngi yor say besoin yaa ngi toppatoo sa njaboot saboté leen dawloo xamoo ko donc et balaa nga leen di pointe du doigt mhm. récupérer leen ba nga indi leen et defal politique boo xam ne say njaboot duñu soxla di dem bañ leen di jàpp di leen di maltraité loolu est di dee boo toogee dëkk jàmbur boo fa dee tamit amul problème looloo ci nekk mm. mais lii dafa nekk lu nga xamante ni dafa ñaaw te il est temps nag mu mel ni lancé nga alerte mais kenn dootu wax ni dem na jël ay doomam maanaam amatul benn Sall j'espère que lii dina sa base et puis la ça veut que pour man lii góor ñi sax mun nañ ko xaw a mais jigéen la gaynde la ça veut que yow soo gisee sa njaboot di sonn fenn rek da war a so da war a génn ñu sentir la eh, nga dem sauver leen jigéen da ngay am non dooga la ko question léegi ah parce que là il est temps de réagir war na mën a réagir ministère am la te def ko yëg na ko yëg na ko daf leen faalewu en tout cas ça c'est pas possible et je me dis que man lii man maa ci tombé mais yeneen pays jàpp feneen ñun de ça veut dire ñun est-ce que ñun doom nekkuñu di dee ci prison yi amuñ njëriñ xam ko bu ñu toogaatee yeneen 48 heures ñoom ñooñu am nañ seeni ay na seeni famille génn ñi nga xam ne mën nañ leen jàppale man de génn leneen lu ñu xam def ko ci dëkk bi dëgg la comme ñun waaw looloy dëgg ay bakkan foofu dañuy dañuy dem immigré ji par force depuis ma Charles depuis waxee depuis ma Charles waxee lii Euh, que dafa am ay Sénégalais yoo xamante ni dañu am ay problème foofu noonu man ñi nga xam ne jot naa leen contacter yëpp ci biir Maroc dañu ñoom yëguñu ko sax mm-hmm. euh, yëguñu problème boobu xamuñu affaire boobu naka la demee xëy na peut-être tamit comme ni nga ko waxee message bi mu ngi jàll ci autorités yi mais xëy na publiquement wala médiatiser wuñ ko comme ni nga ko defee nii tey mun naa am bu ñu jógee fii solution dina ci am mais en tout cas daañu ci revenir at ci lu mel nii pour wax ci pour gën ko leeral. Hmm. parce que nag euh, dañuy wax ni. nit moom kenn ko yëg kenn ko yëg parce que parce yi nee nañu ñii. tekkiwuñu dara. ñoom ni ñu def ba am numéro numéro madame waaw xam nga xam nga il se peut mënuñu ko def ba am numéro. keneen ak keneen amaana suñu amoon numéro numéro numéro Aïssata Tall envoyé. parce que man am naa ko ba pare dama leen ko. envoyé ñoom ñu envoyé ko ay ñu ay ay ay vidéo. en parce que mënuñoo jël ay jël ay consulat lu fay def mais elle ci nekk waa Maroc c'est sûr que waa Maroc contacté nañ euh, ambassade Sénégal c'est sûr mënuñu ko bañ a yëg c'est pas possible parce que doo garder plus de cent personnes ñun suñ téye woon léegi waa Gambie waa waa mais dañuy oo seen consulat wala ñu oo seen ambassade ne leen nañ seen doom ça veut que lii mënun ñu bañ a yëg lii nii mooy bi ñuy toj di daw ñoo daw rek ci dem seen réew fan lañ dem nit ku fonk sa réew daal en te désert yi gis nañ ci ñoo xam ne ni soo rëccee ba dem foofu dañ lay rendi comme dañ lay rendi mu jeex boo jaaree ci désert ba kii te am na yoo xamante ni des fois dañuy terroriser wu ma ne ñii nañ leen teel a dimbali Seydi Gassama Khayri Amnesty International waaw ah. benn journée bu bu bu dem rek lii nii bakkanu doomu aadama yow yaakaaroon yow Seydi Gassama yëg na ko ah, madame maa ngi nii madame excusez-moi euh, monsieur Senghor Sangane je les nomme droit de l'homiste oraa ko démb Rado je ne l'ai pas eu monsieur euh, ah, Niass Niass Niass euh, maître Pape Sène président LSDH je l'ai appelé rien du tout. monsieur Seydi Gassama rien du tout de ça sonne dans le vide mais attends yow soo demee ba ne droit de l'homiste nga. ça veut dire que c'est à de t'organiser est que sa téléphone doo waroo ko teg muy sonné à ou à moins que su jaree nga embauché nit koo xam ne téléphone bi fu mu sonné mu décroché. c'est automatique parce que yow soo demee ba ne lii ku yor téléphone ñu lay oo di oo autant de personnes euh, monsieur Souleymane Diallo Outra Africa j'ai appelé j'ai xam ne balaa ngeen a génn dara ngeen soog di génn wane ne maa ngi kaas dara alors que am na yu gën a am importance benn nit ñaari nit suñ ko waxee du ngeen génn su demee ba siiw nag ku nekk commencé génn di wax Birahim Seck forum civil aussi je pense que lii war na si intervenir en tout cas wala loo xam ne da leen di may orage je pense que kenn du leen ci jiir mais seulement aussi kilifa réew mi Macky Sall xamuñu ndax yëg nga ko wala yëgloo ko lii ñu wane nii xale bi nga xam ne baat baaraam bi dagg na dafa dagg dañ ko dindi xaw kenn xamul lu muy def nee na kuñ ko jox paaka mu yeggali ko foofu la toll ci niveau yow président sa gars yi ngay collaborateur yi nga teg fii liggéey bii la ñu def mhm. ils n'ont rien foutu te yow yaay kilifa gi yow yaa leen fa teg mhm. donc vous êtes naturellement le premier responsable et vous n'avez pas le droit de laisser ça xale bi nee na baaraamam moom nee na nee na ñu jox ko paaka mu yeggali ko parce que dafa sonn dégg wax gi waaw loolu na gars yi def nii mais am na koo xam ne yaa ko fi def nga ne moom mooy ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur ces sénégalais là sont à l'extérieur donc ils n'ont pas fait leur boulot yow waroo leen bàyyi ñetti fan bu fekkoon dëkk bi jaar na yoon ñetti fan da nga leen war a dàq parce que am na yeneen sénégalais yoo xam ne pare nañu xarañ nañ pour liggéey liggéey bi ñii liggéeyuñu pour sénégalais yi seen bopp moo leen fi tax a leer na nañ ñi ngi fii depuis plus de deux mois ndaw si safa ñaari weer bi mu yëgee mbir bi ñaari weer ñaari weer kese bi mu ko yëgee kon lii ñii war nañ fa def lu bon bon ñetti weer mm. ngeen consul bi yëg ñëpp nañu tout le courant am na yeneen sénégalais doole ko ngeen ne da ngeen koy bàyyi nii di leen seetaan yéen ban njëriñ ngeen amal suñu réew bi mm. ñaata ngeen ñuy taxé ci ay impôt ñaata ngeen am ay avantage ak ay séminaire ak ay marchand di jël avion yi di dem ci turu Sénégal trésor ko jox leen ko sénégalais yi c'est pour fii dangay jékki-jékki rek sa xol bi sa xol bi sa xol bi wan et hmm. elle aurait dû elle aurait dû réagir depuis bu yàgg parce que lii c'est grave. la pour moom man ko échec la pour moom bi nga xam ne. moo leen fa teg Macky yaa leen fa teg Macky Sall ñu fa teg liggéeyu jooy naan la ñu vraiment ana ñuy dimbale ana ñu ñuy wàllu dafay indi yabeel sax ñoom diggante ak ndax ku presque kenn kenn mooy wax moo soo xam ne la ñeneen ñi daal dañu découragé ñu ngi tëdd rek lemu mm-hmm. amuñu sax envie wax en tout cas en tout cas et leen di forcer léegi pour ñu waxtaan daam opposition Sénégal bi fii fii am ngeen njëriñ man li nga xam ne ñoom laa xam ñi nga xam ñoom tamit ñoo jiite Sénégal yi nekk foofu noonu ci euh, seen ONG ak ne ku mel ne